nekk en chantier mu ngi nekk diggante forêt bu mbaaw kër mbay fall ak kër masar population kamb extension ñoo initié ngir defar tali bi ngir am accessibilité waaye bërëb bi dafa nekk localité boo xamante ne defkat ñaawteef fii da leen fi sonal. ñi ni ñu ñoo initié pour euh, réparer tali bi parce que lu tax ñu bëgg defaraat suñu tali bi. tali bi dafa bëri agression dafa bëri agression suivi de euh, viol tali bi aussi lu ñu enclave bi depuis euh, autoroute à péage bu mu amee ba tey ñun on a tous les problèmes du monde am nañ fi problème l'insécurité am nañ fi problème tamit agression boo xamante ne waa ci biir këram lañ ko fekk ñu rey ko. yeneen problème daati ci rax askan wi nag di ñaan nguur gi ñu jàppale leen ci wàllu wér gi yaram ci wàllu njàng mi ak yeneen. ministre de la santé mi nga xam ne moom moo yor wér gu yaram xam ne moom moo doy waar moom mooy habitant kam extension yi ñoom ñooy recevoir bassin de rétention yi jógee Kër Massar ak environnant waaw léegi ñun nan la ñu mën a recevoir bassin extension yi ba pare ñun ñu am ay problème assainissement mooy école pour xale yi moom mooy CE lycée pour ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a mag moom mooy hôpital wala centre de santé wala poste de santé poste de santé du ma ko bëgg di wax ndax poste de santé moo gën a tuuti ci période bi sanitaire bi donc. leneen itamit. ca Kamba extension dañoo am jafe-jafe réseau d'assainissement ak évacuation des eaux pluviales